Les pays comme euh, euh, ils sont en avance euh, par rapport à nos pays africains mm-hmm. mais si nous avons nga internet je pense que nous nañu tendre vers <coughs> ces mêmes résultats que Europe di à temps mm-hmm. résultats officiels confirmer après mm-hmm mais fii ci Sénégal aussi am na yenn dëkk yoo xamante ne wax dëgg yàlla. Mhm. après mën nga bon du peut-être même boo jotulee li nga xamante ne mooy résultat final yi. Mhm. am na gox yoo xamante ne boo ko rek. donc mhm. euh, yaakaar naa ne war ngaa mën a boole sa bopp ndax ci kanam ngay nekk wala ci ginnaaw ngay nekk. donc tendance yooyu da ngay gis ne que su génnee rek. Sénégalais yi dañuy xam fan la mbir mi jëm. tout à fait voilà xam fan la mbir mi jëm. am nañu résultat fàttaliku résultat Abdou Diouf. waaye am nañu résultat ci France Montpellier. Euh, ci bureau numéro Basirou euh, Faye amna 215 euh, votants euh, Khalifa Sall amna 6 Anta Babakar Ngom amna 4 Ba amna 12 Idi amna 9 AMD Aliou Mamoudou Dia amna 4 loolu résultat le résultat, résultat yu tukkee faut faire, Montpellier ca Montpellier en France euh, di wax rek di rappeler euh, nit ñi que né euh, tay ñi ñuy que Mohamed Boun Abdallah Dionne a été évacué en France pour des raisons de santé donc mom mhm. jotul voté waxon nañ ko fi ci antenne bi ci subatel mhm. donc diko diko rappeler mhm. di wax ne signalé nañu incident à

Euh, bàyyi ci xel que réew mi élection bu weesoo nous sommes tous des sénégalais arab élection bu weesoo nous sommes tous des sénégalais te itam boo xoolee euh, si communication mhm. candidat yi ñoom ñëpp wax nañu artu jëm ci loolu wax ne que wax dëgg yàlla que le meilleur gagne parce que tey Sénégal ñun ñoo ko bokk donc kenn mënu ko xar ñaar donc depuis ce matin amoon na calme nit yaa ngi doon dem di voter tranquillement donc li si des bareetul hmm. kon nag euh, yàlla na yam foofu noonu li jëm ci wàllu xiiroo bi ak euh, ŋaayoo bi donc à 18 heures li si des bareetul léegi ñu xam fu mbir mi féetee léegi ñu xam fu xaw ma nan wanent mujj ak gëtam Amadou euh, Abdou Diouf président de la République waaw foofu damay appel rek damay def benn appel à, nos forces de défense et de sécurité nous devons redoubler d'efforts. Mhm. parce que mënuñu liggéey fii ba yegsi fii. Mhm. alors euh, mu am ay incidents mu nar a perturber lépp donc nous fii ñu toll moment décisif bi war nañ gën redoubler d'efforts de vigilance. Mhm. merci war nañu redoubler d'efforts ak vigilance la régie sunu. ndaw yi nekk ci ci euh, ci secteur yi nga xamante ne fa fan lañuy watee bureau yi. ngeen la làmb leen dafa mel ni euh, koor gi mu ngi bëgg a euh, jàpp. <laughs> <laughs> jàpp gars yi mel ni koor gi yow la ñuy jàpp nag. non man <laughs> bu ñu ko jiiñ nag. ah non ñoom ñoom ñi nekk fële ci régime yi war ñu xoolal gars yi ci nekk ci ligne yi.

li nga am ci ay xob euh, xam naa ni fii dootul yàgg li may jox liggéey boo xam dana gaaw lool lool lool euh, ndax nag dañ doon xaar rek ñoom 18 heures ñu daal di fermer ñëpp a ferme fermer fi mu toll nii. à part ay abri provisoire yoo xam peut-être ñaar wala ñett ñooy électeurs ñoo ci des mais mën nañu wax ni daan daanaka euh, ñëpp tëj nañu ñu war a jublu ci ñu nga xamante ni moom mooy. def mooy wàññi xob yi. waaw jërëjëf Moussa kon ñu ku rek. lu ci jëkk daanu rek dinañu leen def si. su ko defee ngeen ñu ngi lay teewlu Moussa Niang bu baax a baax lépp lu njëkk daanu foofu ca xaar yàlla rek nga euh, baaxee ñu ko incha allah sant ngërëm ñeel na ko ñu koy jaajëfal. merci Moussa euh, Abdou ñu gis ne ci résultat yi ñu jotagum. Mhm. Euh, kii di candidat Khalifa sàll mhm. daanaka ay xobam.

le candidat Khalifa Sall euh, dafa bokkoon ci euh, coalition euh, yi Askan Wi mhm. bokk na fi ànd ak naag ñoom ci lutte yu bëri mhm. bokk ci opposition à un certain moment mhm. aussi mu mu génn ak li ci xew yëpp mu génn alors foofu je pense que dafa xaw euh, Gambal Marek Abdou comme la priorité c'est le résultat des bureaux Fofé, que Lausanne que Suisse a toujours inscrit 134 suffrages valablement exprimés 75 Bassirou Diomaye 63 Amadouba 11 antaba Babacar Ngom mobile bulletin 0, mobile donc nous avons ko que Lausanne en Suisse inscrit 134

mooy centre bi nekk fii nii fii nag dix huit heures fois bureau yëpp a ngi tëj nii ñoom ñëpp ñu ngi tëj hmm. waaw xam naa damay xool di ba dix xool ñun tamit ndax euh, tëj nañ dix huit heures voilà merci merci pour le dynamisme euh, ak euh, promptitude bi nga am di réagir mm-hmm. Abdou yaa ngi woon ci benn jàngat bu bu xaw am solo waaw Euh, ci euh, Khalifa Sall lañu ñu nekkoon léegi euh, léegi bi mu génnee yeewi askan bi mhm. il a manqué de de sympathisants sympathisants yu bëri yu ko bëggoon. dañu ko weddi dañu ko mujj weddi. Mhm. yooyu day reflété wu ci résultats yi ñu am nii ci élection présidentielle yi. Abdou le cas euh, Anta Babacar Ngom donc euh, soo xoolee euh, moom mooy la seule candidate nek ben jigen bo xamantene mom mo nek ci biir góor ñi. Mhm. vu Anta Babacar Ngom nu mu def ci walu parrainage yi campagne aussi tamit ni mu ko doxalee. Mhm. parce que tay jii bo xolé am ño xamantene xamante peut-être dañu doon duma mën minimiser sax mais ah, yaakaaruñu won parce que bo xolé tendance yi Anta Babacar Ngom au niveau de la diaspora. Mhm. am fa même bu fekkee nek sax voix am yi muy am bariwul. mais à chaque fois fay nek derrière Amadou Ba wala mu nek derrière nga xamante ne moom moo pur peut-être que ñu bëri euh, yaakaarew ñu ko woon foofu donc loolu tamit aussi bëggoon naa nga ñëw ci waaw euh, Aram euh, Anta Babacar Ngom balaa loolu ñu joxe résultat bu tukkee foofee ca Mozambique ñu ne foofee daanaka vote yi jeex na que ne foofu nombre d'électeurs inscrits 142 nombre de votants 95 nombre de votants hors bureau originel ben nombre de bulletins nuls nombre de suffrages valablement exprimés Il faut faire moo fa jutu ak 75 voix il y am 11 voix qui di Bassirou Diomaye Faye am voix donc le euh, bureau bi nga xamante ne moom la ne euh, euh, décrypter ni légui mhm. voilà Mozambique mofa résultat. voilà filles euh, candidat Ba

Euh, ci Anta Babacar Anta c'est la révélation mm-hmm. de l'élection 2024 mm-hmm. non seulement elle est la révélation parce que je dong moo fi mm-hmm. euh, par rapport aux 18 autres candidats yi nga bon amoon na benen révélation, mais kooku après dañ ko muju génne muy euh, Rose Wardini

Euh, président hmm, Senghor Bataï, tàyyi président Abdou Diouf ba tàyyi soog a nekk euh, fi aussi par président Macky Sall aussi xex nak euh, président Ablaye Wade ba nek njiitu réew alors donc opposant yooyu yëpp wane nañ né fi ci Sénégal bala ngay don njiitu réew wala ngay nek ci haut niveau bi il faut nga xex comme ñom dañuy sogo dor je pense que euh, dina gagner de l'expérience mhm. euh, année yi di ñëw dina mëna progresser mhm. té bu ko défé dina mëna am lu bari mhm. donc ñu ñuy wax euh, fële Beirut Beyrouth que élection yi résultat yi fa tomber moy yi nga xamante mom lañ leen nara jox fofu ñu nombre d'inscrits 473 nombre de votants 85 nombre d'enveloppes Trouvé dans l'une 85, bulletin nul ben, nombre de suffrages valablement exprimés 84, ont obtenu Boubacar Kamara ben, qui a maintenant le moment de Djibril Ben Daouda Ndiaye 2, Habib euh, Khalifa Sal 7 voix Anta Babacar Ngom mhm. euh, Amoudouba 18. Ba

Touba TV et à 98.7 au cfm vous aurez tous les bons résultats. Lolo, euh, loolu euh, dama ci mhm. euh, parce que compilation compilation provisoire mhm. des résultats reçus de la diaspora. 17h42 mhm. GMT alors euh, Bassirou Diomaye au total 70,87%. Euh, euh, au niveau de. la compilation ah. euh, voilà compilation au niveau de la diaspora. 70,87%. Mhm. le candidat suivant Amadou Ba 22,9% voilà euh, résultat oui. Mamadou euh, Yàkk euh, Sébastien moom moo Sébastien ko Nous avons ko jox. correspondant en ligne le temps après ñu joxe résultat bi nga xamante résultat am Dubaï donc ci bureau de vote numéro 2 Soit mes correspondant bu nekk en ligne nous jël ko très rapidement d'accord euh, dama doon préciser rek résultat yi ma joxe léegi la euh, compilation bi provisoire bi euh, Mamadou yàq yow que moom statisticien la ba basé wu fële au Québec au Canada. donc Nous ñu jël Ibrahima Khalil Dieng Aram. Ibrahima Khalil Allô, Ibrahima Khalil wala Ibrahim Ibrahima Khalil waaw Ibrahima Khalil Mom lañu ñu annoncé waaw Ibrahima Khalil ñu ngi lay euh, téwlu. Ibrahima Khalil Ousmane Ba allo. ah, ah Ousmane Ba Ousmane Ba borom <laughs> Kayel. waaw depuis Kayel Ousmane Ba waaw Arab Diagne Ndoye Paye. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay téwlu ñu ngi lay nuyuwaat encore une fois te di la teewlu nga euh, wax ñu situation bi foofu ndax bureau de vote yi tëj na wala ba tey am na ñuy wéyal di voter. waaw fi toll nii bureau de vote yi tëj na fii ci commune bu Kayel donc euh, waxoon naa leen ko 11 bureau de vote la. Euh, léegi nag euh, ñu ngi tàmbali li nga xam ne ni moom mooy scrutin kii di décompte mm-hmm. euh, di compter li nga xam ne mooy voix yi mais ren li ci xaw a bees mooy mm-hmm. la presse dafa mel na ni Euh, bàyyiwuñ leen ñu fekkee li nga xam ne nii moom mooy euh, dépouillement bi. Ah d'habitude dañ doon le dépouillement était public. Mm-hmm. mais tey euh, on mm-hmm. demande en tout cas ci biir centre yi ñu egseegum nee ñu daal nañ taxaw fële ca biir bi ci centre bi. Ousmane oui man la sëñ Saliou ma ni xam nga dépouillement yi. waaw waruñu ci assister. ñoom yéen da di xaar rek ba ñu génn affiché. pour ngeen am les les bons résultats. tout à fait tout à fait C'est dans Ousmane. Euh, tout le temps résultat yi. Euh, président bureau de vote bi ak. Ah, euh, ah. assesseur secrétaire bi. ak mandataire yi sont nekk ci biir. Ah, même police force de l'ordre bi day taxaw ci porte ba kenn du dugg ils ont commencé dépouiller. Ils ont commencé dépouiller le président du bureau de vote fait appel à aux forces de l'ordre ils taxaw ci buntu dépouiller journaliste amul dugg léegi nag suñu paree def décompte yi ba pare. Mm. dañuy afficher rek bu ñu afficher léegi euh, presse bi jël daal di relayer. l'information merci ñu bàyyi ko mu le temps que mu. voilà donc euh, loolu moo ci moo fi nekk information bi donc mm. les gens sont sont enfermés dans les bureaux. Mm. et sont en train de de faire le décompte. en tout cas des voix. merci euh, xam naa li ci def moom dañuy xaar tuuti rek donc ñu afficher. bureau yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a jege te ñu am seen résultat ñu mën leen koo jox. merci Ousmane Pure priorité au résultat Bordeaux nous avons wax ne euh, nañu lieu de vote du Poitiers bureau de vote numéro 1 nombre d'électeurs inscrits 302 nombre de votants 168 nombre de euh, nombre de bulletins euh, hors hors bureau ben nombre de bulletins 0 nombre de suffrages valablement exprimés 168

donc l'olé Motouké tukkee ca Bordeaux bureau de vote Poitiers priorité toujours au résultat Abu Dhabi Émirats Arabes Unis euh, localité Dubaï euh, bureau de vote Dubaï nombre d'électeurs inscrits 283 nombre de votants 200 nombre de votants hors bureau originel 0 nombre de bulletins nuls 0 nombre de suffrages valablement exprimés 200

mu mel ni Ibrahima Khalil Dieng dafa nekkoon en attente ci ligne bi Ibrahima Khalid. ñu jël ko. allo Ibrahima Khalid. waaw euh, Aram Ndoye maa ngi lay ziar. ziaraat la encore une fois fu situation bi tollu jamono ji. waaw ba léegi ñu ngi woon fii ci Hann Bel-Air euh, daanaka bi 18 heures jotee ñoom dañ ko yëgoo bureau yëpp daal dinañuy tëj ci jamono ji mhm. ñu nekk ci li nga xam ne moom mooy dépouillement di maanaam vérifier rek li nga xam ne moom mooy euh, vote bi ngir xam ana fan la woon ci mujjee ki gëtam xëy na dañu toogandi di euh, xaarandi rek ba xam ci kanam tuuti xëy na mu am yoo xam ne dina tàmbalee tukkee ci yooyu le bureau waaye daal ci jamono ji ñuy wax moom Euh, décor bi du euh, ci taxaw mooy euh, tëj nañu bureau yi. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñooy force de l'ordre yi aussi. ils sont en place pour mën a sécuriser li nga xam ne moom mooy bureau yi commencer détacher par élément pour ñu taxaw surveiller bu baax a baax li nga xam ne moom mooy déploiement bi. Mm-hmm. Mm-hmm. merci merci beaucoup merci beaucoup Ibrahima Khalil. Euh, ñu avec une directe priorité au résultat bureau de vote Dubaï bureau de vote numéro 1, 5, bureau de vote numéro 2, nombre d'électeurs inscrits 490 nombre de votants 221 nombre de votants hors bureau originel 0 bulletin nul 0 nombre de suffrages valablement exprimés 220 ko Basirou euh, am 135 voix donc il faut le comptabiliser Qui mhm. a maintenu mon moom à Amadou Ba am voix Dechefal Fall am fa euh, Khalifa Ababacar bagasal am fa benn Babacar Ngom am fa benn en Fagnar, am fa ñaar Aliou Modou Dia am fa ñaar donc ci bureau de vote numéro 1 de Dubaï donc ñu top résultat yi mhm. euh, ba ci kanam ñu bureau D'accord. comme ni nga ko waxee sëñ Saliou ñu topp euh, résultat yi rek euh, fi mu nekk nii nag gis nañu ne que respecté nañ bureau de vote yi respecté nañu Abdou li nga xamante ne moom moo di heure bi parce que 18 mhm. heures gis nañ ne bi mu euh, jotee Aïcha Doucouré comme ni mu ko waxee sànq ak Moussa mhm. Niang waaw am nañu information de taille léegi que les médias nationaux et mhm. internationaux priés de quitter les lieux de les lieux au bureau de vote d'Amadouba des Parcelles Assainies waaw ah, euh, loolu information de taille information de taille ils sont priés de quitter les bureaux de vote bi nga xamante ne la euh, Amadou Ba voté mhm. lan moo tax ñu prier les ñu génn fofu dinañ ko topp dinañ ko topp ba xam li tax alors Soxna Mbossé, je pense que mi ngi ci ligne bi Soxna Mbossé, bismillah. waaw Aram waaw Enfin, euh, nii maa ngi ci école Liberté 6A waaw. Mhm. ci centre ci centre Liberté 6A fii nag li ñu nemmeeku mooy tëj nañu tëj nañ bureau de vote yi depuis 18h. depuis 18h. Mhm. même grande porte bi sax dañ ko tëj depuis 18h ñun instant bi nii ñoom ci buntu bi taxaw. Mhm. mais ci ginnaaw loolu rek dafa am ñeneen ñu bëggoon ñëw voté waaye policiers yi nanguwuñu leen bàyyi pour ñu voté ndax nee nañ na waxtu bi jot na. Mhm. d'accord voilà nous avons xaarandi après fofu nga nga indi li nga résultat yu fa euh, kon jamono ñi ñu euh, bureau de vote nañu li rek euh, def li nga merci merci merci Aram mhm. ci résultat yi ñu jot bureau Istanbul mhm. Euh, daanaka ñoom seen lim yi bare nañ ci ñu wax ne foofu euh, candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo fa am cent vingt une voix mu nekk lim bu xaw a takku Amadou Ba am fa cinquante deux voix ki nga xamante mooy Idrissa am fa benn voix Aliou Mamadou Dia bu PUR am fa trois voix ki nga xamante mooy Pape Djibril fal am fa deux voix euh, mu nekk loo xamante ne Aly Ngouille Ndiaye moom am na Euh, trois voix, donc au que résultat YouTuber foofee ci Istanbul alors. Mhm. D'accord. accord mu nekk résultat yoo xamante ne moo euh, Istanbul alors euh, Abdou nak euh, dañ koy may tout. mu xawa d'alu, xawa soufflé Dali, mhm. ndogu ba paré mën ñëwaat ñu and ci ak ki nga xamantene momo di Serigne Saliw alors Serigne Saliw ñu ngi mhm. lay nuyuwaat bu baax a baax di rafetuwaat liggéey bi gis nga ne bobak léegi tendance diaspora bi mi ngi wàcc bu baax baax au niveau international et que coalition coalition Diomaye ñoom ñoo nek ci euh, euh, kanam. Mm. Euh, fi nak ci Sénégal donc bureau de vote yi ñu ngi commencé di tej donc mm. gis nga soxna mbossé mi ngi expliquer sax amna na ñoo xamante ne xam naa ñooñu dama yaakar né dañoo xamul li xew ba 18h ngay ñëw pour bëgg voter loo mu nek lo xamantene lu lu doy waar la en attendant ñuy xaaré ni résultat yi nga xamantene mom mo am fi au niveau national parce que jamono ji askan bi yëpp loolu lañuy xaar. Mm. askan wi instant bi ni li leen gëna ñor. Moi, li ci euh, résultat mm-hmm. voilà euh, aram Bala, sëñ mm-hmm. Saliou di dallu priorité au résultat. Mm-hmm. moom lay faral Non, non. Euh, Égypte bureau de vote numéro 1, résultat yi nombre d'inscrits, 473 nombre de votants 85 nombre d'enveloppes trouvé trouvées dans l'une, 85 nombre de bulletins nul ben, nombre de suffrages voilà, expliqué exprimé 84 foofe nag résultat yi nga xamante ne ñu ngi leen di koy waaj a jox moo fa tukkee Boubacar Camara benn xob la fa am Déthié am fa benn xob Daouda Ndiaye am fa ñaari xob Habib Sy am fa benn xob kii nga xamante ne moom mooy xalifa euh, Sall am fa juróom-ñaari xob kii nga xamante ne moom mooy Amt Babacar Ngom am fa ñetti xob Amadou Ba am fa 18 euh, xob. candidat bi nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye am fa 46 voix Thierno Alassane Sall am fa benn voix Aliou Mamadou Dia bu PUR am fa 4 voix sëñ Saliou ñu ngi lay dalal. jërëjëf euh, euh, Serigne Saliou Faye sama turandoo di la euh, jaajëfalaat di rafetluwaat ànd bi ñu àndee suba léegi di jaajëfal Soxna Aram moom itam di ko encourager ci liggéey bi en tout cas je apporter du 109 comme xaw a may. Euh, sama waa mu dallu touti parce que depuis ce matin il était là donc euh, mu mag moo ma ko démarré depuis huit heures ak aram donc euh, mu xaw jafé lol ci mom ma bay ko mu xaw a touti lata ñuy ki ndax li ci dess amana <laughs> xawna takku comme ni nga ko waxé rek dépouillement en cours au niveau national ndax wax deug fa yàlla fi wuréw a dem na këng euh, ni ko olof Ndiaye di waxee euh, toll nañ ci fi nga xam ne euh, mooy càppaandaw gi te loolu lañ doon xaar amaana boobaak léegi bu nu fa tollee nag sénégalais yi kenn ku si ne escorté ci rajo yi wala sax ci télé yi ngir rek mën a am li nga xam ne mooy tukkee ci yile résultat en tout cas lépp loo xam ne wàcc na fi rek daañu ko mën a jukki daal di leen koy tegal ci kaw table bi leer na ni Euh, fële ca diaspora bi moom euh, résultat yi wàcc na bu baax a baax daanaka euh, résultat yu bari tendance yi bu ñu ko xoolee bokk na si ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi di coalition Diomaye 2024 bu ci toftal ci ki nga xam ne moo di Amadou Ba du foofu sax boo seetloo pur ak xalifa Sall ñoo fa nekk di jongante. Mhm. ci beneen wet wi léeg-léeg Anta Babacar Anta Babacar Ngom ñëw itam indi dooleem donc. comme priorité au résultat ñu bàyyi euh, Serigne Saliou Faye euh, moom itam mu yàggale ci wàllu woowu. waaw fofé ci ci Lille bureau numéro 3 ñu ngi wax né Bassirou Diomaye fay amna 243 ci xop yiñ mhm. ko euh, wàññil. Mhm. Amadou Ba am fa 40 xop Papa Djibril Fall am fa benn Thierno Alassane Sall am fa ben Idrissa Seck am fa ñett mhm. Khalifa Babacar Sall am fa ben Aliou Mamadou Dia am fa ñeent. Gako am fa ben Mamboy Diaw am fa ben ben bulletin blanc lañ fa nemmeeku. Euh, muy mel ni rek hmm. euh fi la mburu mi di xoy xoy. wa bu boko fi amul xeyna xeyna do am mburu mu sax ah. boko boko boo ko ameewul fii. am mburu mu donc quelque chose à dénoncer euh, je je euh, déglu na sank Abdou Diouf don ci yëkëti ay kàddu bokk na ci médias nationaux yi ak médias internationaux yi nga xamné ñu ngi leen di prier pour ñu quitter lieu euh, de euh, de vote yi euh, Amadou Ba nekkoon ci Parcelles Assainies. Mhm. donc mu nek lo xamné ñu ngi koy ñaawlu franchement. Mhm. c'est à dénoncer parce que la presse a am l'obligation et le droit d'aller divulguer bépp information bo xamné tuké na fofu surtout zone bi nga xamné tay daf ñu intéresser lu ci melni zone Parcelles Assainies fi nga xamné tay Amadou Ba fa la voté donc mhm. ça nous intéresse hein. les forces de l'ordre demandent à de sortir du centre de vote donc lool nak ñaaw na lool kon mun nañ leen bàyyi. Mhm. ñoom itam ñu defee ko euh, ni mu waree euh, Mali euh, ko bureau numéro 8 Diomaye 256 Anta Babacar.

sone wonna bu yàgg depuis euh euh ci nguru euh, président Macky pour euh, képp ko xamné da nga and ak Macky Sall wala bo seetloo ci législative yi passé non lo det noonu la démé diaspora bi itam no nek complètement à l'opposition donc li nga xamné mo tuké ci résultat yi jugee ci diaspora bi nek lo xamné fimné warna euh, euh nek surprise ci ñun parce que fi mbir ak fi mu yegg si ça se comprend waaw mu nekk euh, lii nga xamante ne ñu ngi leen koy waaj a jox muy euh, joxoon nañ ko sax muy Bordeaux. ci hmm. bu ñu xayma bureau de vote yi. 302 euh, électeurs inscrits. 168 hmm. votants. ben originel hors bureau ah. hors bureau original, nom de bulletins zéro.

mu mel ni am na candidat yoo xamante ne daanaka seeni résultat ci diaspora bi. Mhm. Euh, néew na trop. ba tey ci diaspora bi la ñuy desandi ay dem Espagne Burgos euh, votant yi toll ci 84 Diomaye 67 euh, voix Ali Mamadou Dia 8 voix Amadou Ba 8 voix Serigne Mboup benn le reste kenn ku si ne am zéro. mais c'est ça est-ce que fi ñu toll nii. ci diaspora bi. Mhm. mënuñu wax tendance qui se dégage.

Sow moom mi féetale ci bureau bi nga xamante ne fala Malick Gakou voté ak ki nga xamante ne moom moo moom mooy Ahmed Aïdara mhm. aram nga jël ko Souleymane Sow Souleymane Sow euh, ñu ngi lay nuyu ñu ngi leen di ziar bu baax a baax benn mhm. euh, Saliou Faye ñu ngi leen di mhm. euh, ñi ngi fii nag jóge nañu école seize léegi gannaaw bi ñu tëjee bunt yi tëj nañu bureau de vote yi ña ngay ña ngay ci dépôt yi ba ñu fa jógee la ñu jógee ñëw ñëw fii fi nga xamante ne mooy centre bi nga xamante ne moom la Aline Sall voté. Mhm. muy euh, banque islamique ak neen la Fatoumata ataal mhm. euh, foofu aussi tamit euh, fekk nañu ñu tëj bureau yi na ngay mhm. xam naa daal mbir yi ñu ne selaw ñu ngi ne selaw daal di compté. takk day rek ngay gis ñooy dox ci biir centre bi. di di xool di vérifier bu baax a baax a baax. dañu bëgg a xam fii tuuti rek bureau bi nga xamante ni moom la Alioune Sall voté. ak euh, bu ko jógee rapidement rek delluwaat fële ca école Thèse ndax diggante bi sorewul. Mhm. en attendant daal les événements en attendant. Mhm. Mhm. merci merci Souleymane Faye euh, soow foofee ca Géejawaay mu ñuy defal liggéey bu rafet. di dem ci centre de yi di ñu taataanal résultats yi donc di wax ne euh, la régie. Aïcha Doucouré néna ngeen jël ko mom mi nek fofé ci parcelle. xeyna dafa am dafa am lu fa lu fa effectivement Aïcha Doucouré nous avons ngir ñu mën ko jël ngir rek itam mu la situation qui se présente actuellement euh, ci euh, zone bi nga xam ne la rapidement si c'est disponible avec la régie ñu dem jëli Aïcha euh, sinon ñu continuer ak euh, vote yi ak résultat yi nga xamné euh, fimné batay mu ngi wëy di di di wacc ma jox la ben bala ngay sori de Havre bureau numéro 7 nombre d'inscrits cinquante nombre de votants 203 mhm. ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye cent Amadou Ba mhm. ñu né nak mom 68 voix lam fofé ci Le Havre bureau numéro 7 ay Aïcha kon ñu jëlé Aïcha dougouré Aïcha ñu ngi lay nuyu bu baax a baax fay euh, di leen jox seen wàccuwaay comme ni ma ko waxee woon sànq en gis nañu directeur di ko wax que fële bureau fële euh, Grand Médine mhm. dañu génne woon journaliste nationaux yi comme internationaux yi génne tam waa SEMAC parce que dañu waxoon ni génn ñun ñëpp ba affichage bi mais ñoom seen bopp xam naa bu ñu toogee xool xam ne c'est pas normal ñu dugalaat yi Mhm. waaw léegi ñu ngi ci biir di xaar. ah kon léegi mun nañ jàpp ne dugalaat nañ leen ci biir centre bi. waa waaw duggaat nañ leen ci biir. centre dañ leen euh, génne woon génne woon. waaw dañu génne woon sans explication. Mhm. Mhm.

avec euh, Touba TV. Les résultats pour le bureau de Mulhouse sont tombés. France Mulhouse, bureau de vote numéro 1. Nombre d'électeurs inscrits 525, nombre de votants 231, nombre de votants hors bureau originel Ben, nombre de bulletins nuls Ben ont obtenu Tiano Al-Sansal 0, Basilou Djomaï Faye 141 voix, Boubacar Camara zéro Cheikh Tidiane Dieye zéro Déthié Fall zéro euh, Khalifa Ababacar Sall euh, trois euh, Amadou Ba quatre-vingt-quatre kii nga xamante ne moom Idrissa Seck benn voix la fa am ñi ci des yëpp seen lim maanaam lim bu niil maanaam amuñu fa benn voix loolu moo tukkee ca foofee ca. bureau bi nek ci France. Mulhouse Mulhouse. Mhm. ñu ñëw nak ci benen résultat fofé ci Luanda ñom danaka sen vote yi tënk nañu ko. ñu ñi mhm. wax fofu né Bassirou Diomaye Fay am na fa 53 voix. Mhm. Boubacar Camara am fa 2 Cheikh Tidiane Dièye am fa benn. Euh, ki nga xamné moy mooy Sy am fa ben Anta Babacar Ngom ben Amadou Ba am fa 147 voix. donc lolu mo tuké foofee ca bureau boobee Idriss Seck am fa sept. Mhm. Papa Djibril Fall am fa deux voix. Souleymane Sarr Souleymane Sarr depuis Sokone euh, ñu ba ma bàyyi ngeen jël ko. d'accord sëñ Sall ay ci Souleymane Sarr ñu ngi lay delluwaat di la nuyu. oui euh, salaamaaleykum euh, ñu ngi fii Sokone ci école des mhm. donc centre de vote la ci quatre centres de vote yi am Sokone muy centre de vote école des centre de vote. Euh, désert dans de fortes école 1 euh, du El Amadou Dem ak Catalunya. Mhm. mais ñom ñëpp actuellement ni ils sont fermés léegi dañu nekk ci dépouillement yi. Mhm. donc euh, ils ont fait sortir tout le monde donc motax tax on attend donc les résultats momentanément. Mhm. merci voilà lolu moy lolu moy li xewagum fi voilà. merci Suleiman Sarr depuis Sokone ñu lambal ñu ce qui se passe dans les îles à Djonwar, précisément avec notre représentant Djibril Ndiaye Aram. Alors, sans que Sénissa Salim nous donne la compilation provisoire des résultats, il n'a pas au niveau de la diaspora. Mhm. Donc, John il est à 70,87%. Amadouba, il est à 22,92%. Genève bureau numéro 2 donc euh, Bataille, qui euh, ki nga 57 euh, Amadouba Ba que 3. Bordeaux France 142 Amadouba encore 17. Italie 229 pour Diomaye et 30 pour Amadouba. donc Bataille, nous ñu ngi le résultat yi Allemagne aussi également. Euh, Diomaye il est à 45 voix. Mm. Amadou Ba 10 voix dafay rejoindre euh, euh, rejoindre li ñu doon wax. wax dëgg mm-hmm. yàlla ne au niveau de la diaspora est-ce mm. que mënuñoo sax euh, tàmbale joxe li nga xamante ne moom moo résultat parce que boobu ak euh, man gisaguma peut-être que ñun ñoo jotagul gisaguma foo xamante ne rawagul nañ fa ki nga xamante ne le candidat Diomaye xëy na Amna am na mais nee na dañoo jotagul ci diaspora bi yooyu les résultats. Arama merci beneen walla euh, ñu Arama euh, bàyyi sëñ Saliou comme yow yaa gën a frais bu baax nga jël El Hadj Djibril Ndiaye El ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi leen di fay macha allah nga féetee ci diwaanu Dionewar lan lañu mën a jàppandi foofu waa Dionewar saa yi tëj nañu bureau mhm. ñu ngi xaar rek ba gars yi ubbi bureau yi mhm. ñu mën a joxe résultat yi mais vote bi moom ça bien passé. Mhm. dara amu fi daal ci ay histoire ak yooyu. d'accord merci. jërëjëf euh, euh, faamante itam mu ngi yëglu bu ngeen ko mënee. Euh, jël ci suuf moom itam mu daal di yegsi ci kaw. en attendant en attendant euh, mhm. résultat comme euh, fii la fii la. waaw fii ah. mburu mi xoyom xoyom. voilà comme <laughs> boo fi kiiwul doon ndogu. jàpp leen mhm. Touba TV. Mhm. Océan FM 98. waaw ma wutali ci. Luanda pour vraiment. informé avoir les bonnes informations. waaw surtout ça euh, euh, information sûre ak euh, yu net aussi ma wutali ci Luanda parce que tantôt Aram da doon wax ne gisagul ben bureau boo ne Amadou Ba gañe na ko waaye ci Luanda loolu moo fi am ndax bu nu dans bureau numéro un Amadou Ba prend le large bu Boubacar Camara am deux voix Cheikh Tidiane Dieye am un. Euh, voix euh, Déthié Fall euh, zéro voix Daouda Ndiaye am zéro voix Habib Sy am une voix Khalifa Ababakar Sall itam zéro voix Anta Babacar Ngom am une voix Amadouba Ba moo am 147 voix Toftal Ibrid Seck itam am 7 voix ki nga xam Pape Djibril Fall am 9 voix euh, Bassirou Diomaye Diakhar Fay am 53 euh, voix ni ci des euh, am zéro xob. fofu foofu moy résultat yi tukkee ci Luanda merci ñu tuk ñu daw fofu ci Mantes-la-Jolie. Hmm. Mantes-la-Jolie nak gis nañu né foofee candidat bi nga xamante mom moy Amadou Ba fa ci kanam. 148 hmm. voix. Diomaye am 73 euh, voix. Mm-hmm. ñu joxe yeneen candidat yi xaw na flou. Mm-hmm. le temps ñu xoolaat. Euh, mm-hmm. euh, document bi ñu envoyé. mais daal liñ ci mën a xayma mooy. kii nga xamante ne moom mooy Amadou Ba. moo fa am 148 voix Diomaye am fa 73 jàngat nag ci mantelage yi dafa mës a nekk. fiefu Macky Sall. Macky Sall daanaka.

445 inscrits ñoo nombre de votants 190 nombre de enveloppes trouvées dans l'urne 191 bulletin nul ben, nombre de suffrages valablement euh, exprimés ont obtenu Khalifa euh, Tiano Al-Sansal 0 euh, Basilou Diomaye 135 King nga xam Ben Lam, Aly Ben Ndiaye la am 9 voix Serigne Mboup am fa ben Pape Djibril Fall am ben voix qui nga xamantene mom moy euh, candidat Benno Bokk yakar Amadou Ba 39 voix Idrissa Seck am benn Khalifa Babacar Sall am fa benn Daouda Mbaye benn Déthié Fall am benn notre correspondant en ligne su dougou masser gay Massaer masser Baye Fall masser ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax. masser Aïcha ca Masseer dem na kon dañuy wéyandil ci euh, lola nga don yeggali léegi di euh, résultat yi nga xamné euh, fi mu toll ni ñu ngi koy am bureau témoin R100 Thiès remporté par Bassirou Diomaye Faye donc Thiès mbir yang fay tambalé wacc bureau témoin bi nga xamné R100 la nek nombre de votants 52 Diomaye 26 voix Amadou 12 PUR 3 euh, l'information juste et vraie c'est sur Océan 98.7 Touba TV Mulhouse bureau de vote numéro 1 nombre d'électeurs inscrits 525 nombre de votants 231 nombre de bulletins nuls ben hors bureau ben fofé faire Mulhouse France

maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu soxna Aram di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp. Mhm. comme ni nga ko xamee résultat yi commencé na wadd fi nga xamante ni moom moo di ci dëkk bu sell bi di euh, Touba. Euh, ñoo ngi si nag ci euh, centre de vote Daaru Marnaan arrondissement. Mhm. ci suba ci sama intervention yi ma doon def dégg ngeen lu ma leen waxoon ci centre bi nga xam ne moom moo di Daaru Marnaan arrondissement souvent. résultat yi nga xam ne moom moo fi wadd moom mooy répercuté waat ci mboolem euh, centre yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk parce que bokk na ci centre yi nga xam ne ñoom ñoo gën a mag ak fi nga xam ne moom moo di euh, université ak euh, fu ñuy wax al azar mm-hmm. instant yi nag commencé na wadd ma ñëw ci bureau bi nga xam ne nii affiché nañu sëñ bi may ma wax moom ma kii tuuti mm-hmm. bu ñu sukkandikoo nañ la may de <laughs> moom moo di waaw nañ la bureau de vote numéro 87. moo raw moo raw moo raw gars euh, ma wax ko mu gaaw rek Boubacar Camara am fi une voix hmm. ñi nga xam amuñu fi nag dama leen di dama leen di dama leen di sote waaw très rapidement rek hmm, Camara fi am une voix hmm. ki nga euh, Anta Babacar tamit fi une voix Amadou fi 16 voix Aliou a Seck am na fa une voix Serigne Mbuub am fi trois voix mhm. Papa Djibril Fall am six voix euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye deux cent soixante-dix-neuf voix mhm. Thierno Alassane Sall am trois voix mhm. loolu moom moo tukkee ci euh, bureau de vote euh, quatre-vingt-six ci résultat yi nga xam ne commencé na fi rotandu ñu daw daw xool. Mhm. parce que am na ñu leen ñu affiché mais <laughs> li ma leen waxoon sànq résultat yi génn fii souvent benn bureau de vote. buy mhm. njëkk a génne lu muy génne. loolu moom mooy daanaka law si yeneen. Mhm. yëpp yéen a ngi dégg mbooloo mi noonu. dañuy déglu rajo yi di déglu li nga xam ne moom moo di reporter yi nekk sur le terrain. ñu waxee report euh, résultat yi. suñu déggee turu jaxaar jomaay fay bi ak écart bi rek ñu yuuxaloo. commencé yëngu. <laughs> commencé yëngu dégg ngeen na malgré que force de l'ordre yi maintenir nañu li nga xam ne moom moo di euh, euh, fi nga xam ne moom moo di. ci euh, dispositif bu am solo lañ fii lañ ci teg. Mm-hmm. di sàmm kaaraange gi dañoo barricade bi nga xam ne moom moo di centre yëpp parce que Touba xam ngeen ni dañ ko doon ragal. Mhm. ay sabotage am fi. Mhm. am ay alerte ci ñaari camp yëpp que ni sabotage mhm. mun na am moo tax nag force de l'ordre yi depuis matin dañoo taxaw fi nga xam ne moom moo di ci seen ay euh, ay taxawukaay yu dëgër. teg dispositif bu am solo. sécuriser ko waaye tamit di indiquer nit yi di leen wan yoon wi. ku ci andi sa carte d'identité ñu war la ban bureau nga war a voté. ba mu nemmeeku wuñu ci benn incident alhamdulilah ci subaak léegi. Mhm. Awa Ndiaye ñoom ci bureau de vote 70. Euh, mhm. mhm. waaw. Euh, fii mën nañu ku ne euh, ki nga xam ne moo di Cheikh Tidiane Dieye am na ci trois voix. ki nga xam moo Déthié Fall une voix. professeur Daouda Ndiaye une voix ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba am na ci 33 voix. Euh, ki nga xam ne moom moo di moom Hadji Mamadou euh, Diawo am na fi une voix. Mm-hmm. Aly Ngouille Ndiaye am deux voix. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Diakhar Faye deux cent cinquante trois voix. Thierno Alassane Sall deux voix boobu mooy bureau de vote numéro soixante dix. numéro soixante dix ñu dawaat xool beneen. d'accord vas-y Awa. ah affaire bi doy na waar <laughs> moom waaye. Euh, damaatal ñu parce que xam nga Touba. Ah. dafa résultat Touba dafa nekk. Euh, loo xam ne ñëpp moom la ñuy xaar réew mi yëpp moom la ñuy xaar. mais mm-hmm. li mu annoncé gum nii de bu ko bureau yu continuer mm-hmm. ah waaye. dawal ñu fi beneen waaw euh, le le couper. le temps non couper. dañuy le temps euh, nga dem ci dañ koy le temps ñuy jël Touba Touba euh, région de Jourbel. département de Mbacké. Mhm. centre bu bureau de vote numéro 37 fofu itam. Euh, résultats yi wacc na fa lu tollu ci euh euh, euh, euh Tidiane Dieye amna fa une voix euh ñi ci ñi Amadou Ba am 10 voix qui nga xamné modi Serigne am 6 voix Pape Djibril Fall am 2 voix Basir Djomay Jahar Fay am 140 voix Tcherno Alsan Sank Sall am une voix donc fi tam ci bureau 37 Darou Khodos ñu gis né Bassirou euh, Diomaye Diakhar Faye mo fi remporté mo am 140 voix. waaw anam boo amee résultat boo amul résultat waaw résultat muy case des tout petits bureaux témoins ci Thiès. Mhm. Euh, Diomaye euh, Faye am 28 voix Amadou Ba am 12 voix Idrissa Seck am 7 voix. donc case des tout petits donc petit résultat. Mhm. ñu dem fofé ci Finlande muy Helsinki fofé nombre de votant 65 euh, nombre de suffrages exprimé 65 nombre de votants 39 or bureau originel Ben, bulletin nul 0 nombre de suffrages exprimé 39 ont obtenu Basiru Diomaye Diakher 33 qui a xamantene mon moyen Khalifa Bakar Sall fait voix Amadou Ba 5 voix. Euh, Idriss Seck am fa benn voix. Danaka, Fofé, résultat. Euh, bureau numéro 86 euh, donc très rapidement mm. Bassirou Jomay Fay 279 voix. Amadou Ba moo ci tool am 16 voix. ca Touba Touba ba tey Daaru Marnaan Daaru Marnaan bureau numéro 86. résultat au Luxembourg. Euh, Masser Gueye Baye Fall mu ngi ci biir waaw muy euh, dugg ci ligne bi. <laughs> Hmm. Diomaye Faye euh, au Luxembourg. Hmm. am na 265 voix Amadou Ba am fa 41 voix. Hmm. Aliou am fa 2 Aliou Mamadou am fa 2 Déthié Fall benn xalifa Sall benn Idrissa Seck. benn pap Djibril Fall benn le reste amuñu fa dara. ya ngi woon fan ci. donc ñu jël ki nekk en ligne. foo nekkoon ni Luxembourg. Luxembourg d'accord accord. Hmm. ñu jël ki nekk en ligne Masser Gueye Baye Fall. waaw sëñ Saliou. ba tey yaa ngi ci diwaanu yëmbal. waaw ngi fi ci yëmbal ci école bi nga xamante ne donc. Euh, waaw très rapidement rek ñu xool nga yëkkati kàddu gi tuuti. waaw ma ngi fi ci bon école bi nga donc génn nga. Mhm. voilà donc léegi nag euh, gars yaa ngi toog di compter fi mu ne nii tëj nañ bunt yi. Mhm. donc ñëpp ngi toog di xaar ci biti mi ngi fees dell. donc journaliste yi ngi ci décompte yi. Hmm, waaw ñu ngi ci décompte yi. d' accord donc ñu. Mhm. waaw ñu bàyyi la xel xel ci décompte bi bu paree nga dugaat. d'accord waaw. priorité au résultat Le Havre loo xamante ne daanaka. Mhm. gëj nañ ko nemmeeku. Mhm. Le Havre daanaka boo xoolee c'était le fief de Benno Bokk Yaakaar Macky mhm. Sall. foofu nag nee nañu nërmeelu am na foofu ndax fofu Jomay Jaxer Fay mo fa jitu am 1026 voix Amadou Ba am fa neuf voix mu nek li nga xamantene mo tuké fofé faire Le Havre ñu jukki un euh, résultat. est-ce que ñu jël soxna Awa. acca ah, ñu jëli soxna bu waaw dafa dem ah? mhm. mu ngi ñëwaat. Mhm. waaw na euh, li France. Mhm. mu euh, mu résultat yu fa jot na Le Havre.

ci euh, Océan FM Touba TV. 98.7 avec Touba TV Salew. Ziguinchor itam seni Khobia euh, Wachina, ya na euh, Ziguinchor centre Mamadou Bayo bureau numéro 5 Bassirou Jomai Faye l'emporte avec 264. contre Amadou Ba 67 voix fofé faire pour ñu def ko très rapidement rek euh, Fofaitam itam ñeneen ñi nga xamné ci voix néna la Bassirou 264 voix euh, Thierno Alassane Sall zéro euh, elage Mamadou Ndaw 0 Ali 0. 0 zéro El Boun Abdallah john 0. Mamadou Lamine Diallo une voix Pape 0 zéro Serigne deux voix Aliou Mamadou Dia zéro fois Idrissa zéro voix Rose Wardini itam 0 euh, euh, Amadou euh, Amadou Ba 67 voix bu ko defee mooy tendance bi nga xamné ne am Camara une voix Cheikh Tidiane deux voix. merci Serigne Saliou fofé ci Cameroun vote ba danaka nombre d'électeurs inscrits 464. Mhm. nombre de votants 172 nombre de votants hors bureau originel 0 nombre de bulletins nuls ben nombre de suffrages valablement exprimés 171 Qui nga xamante ne moyen Amadou Ba mo fa euh, Yaoundé am 114 voix top ci Bassirou djomay Diakhar Faye am benn voix Ali Ngouille Ndiaye voix Dia am 3 voix qui nga xamantene euh, Khalifa Ababa Sall am deux voix De Fall am ñetti voix l'olé moy résultat yi nga moo tukkee foofee ca Yaoundé. jërëjëf arrondissement de Ndam bureau numéro 7 Touba Mbacké Bassirou Diomaye Faye am 279 euh, voix Amadou Ba am 16 voix euh, Pape Djibril Fall am 6 voix moo ci daal di toftalu ñi ci des euh, zéro. mu nekk résultat yi nga xamante ne moom moo fi tukkee ñu dem ca foofee ca Caajaay priorité priorité au résultat mm-hmm. résultat à Thiadiaye. Mm-hmm. CM1 bureau de vote numéro 10 Diomaye Faye 191 voix Amadou Ba 101 voix loolee moo tukkee ci foofee nga xamante ne moom mooy bureau bi ñuy wax Thiadiaye. Mm-hmm. sëñ Saliou am na ku nekk. ñu jëli Awa Ndiaye moom itam ci diwaanu Touba soxna Awa ñu jëlaat la ba tey nga nekk ci bureau yi ci Darou Maman arrondissement. acca waaw. ci bureau de vote numéro 34. ci mhm. nombre de lecteurs nombre d' inscrits ñu ngi nekk 525. Mhm. nombre de votants yi nekk 317. Mhm. nombre de votants ordre original 6 voix la. nombre de bulletins nuls 2 voix. nombre de suffrages voilà valablement exprimés 315. ont obtenu Boubacar euh, Boubacar Camara sax 0 zéro <laughs> voix yi la bokk. commencé ci Khalifa Bakar Sall amna fi une voix. Déthié Fall amna fi une voix. Anta Babacar Gom une voix. Amadou Ba amna fi trente voix manam fanweri euh xom Idrissa Seck amna fi une voix Serigne Boub amna une voix Pape Jibril Fall amna na quatre voix Mamadou Lamine Diallo amna fi une voix Mohamed Boun Abdallah Diallo amna une voix El Hadji Malick Gakou am na fi une voix Aly Ngouille Ndiaye am na fi une voix El Hadji Mamadou Diawo am na fi une voix Bassirou Diomaye Diakhar Faye deux cent soixante-dix voix soixante-dix voix Thierno une voix kon ñu ci des ñëpp dañoo seddoo ay une voix une voix mm-hmm. Amadou Ba moo fi am trente voix Bassirou Diomaye Faye am fi deux cent soixante-dix voix mm-hmm. bureau de vote numéro trente-quatre mm-hmm. xaaral porte bi daal ñu dawaat beneen beneen a ngi tafaat ayca ayca waaw dawal jëla sa temps. en tout cas euh, bu ñu ko toppee nii mën nga ni euh, bureau de vote yëpp nii lay demee parce que euh, depuis deux mille douze ba léegi ñu ngi fiy couvrir ay élections. Mhm. xam nañu bu baax a baax nattukaay bi nu muy taxawee fii ci Touba. effectivement waaw. ñu bàyyi la nga daw xooli résultat yi xam nga Touba bi moom daanaka. nit ñi moom la ñu safoo pour jox jot résultat yi nga xamante moo tukkee ca Touba Mbacké ñu bàyyi la nga dem xool yeneen bureau yi ñu ngi lay ubbi ligne bi pour nga mën a dugg ci lu gaaw mm. priorité euh, euh, waaw bu fekkee du leen No mën a garder en repérage parce que dugg bi day mel ne dafay xaw a jafe non non non waaw da nga sànq dugg naa waaw mais dafa xawoon jafe ay ca ay ca kon euh, très rapidement ñu continuer ci yeneen bureau de vote bi. soo soo jotul soo jotul régie bi rek. waaw xam bureau yi xam nga c'est bureau de vote. léegi de kii day tax. Tua trois day kat quatre vingt dix tap léegi boo jégee trente quatre. waaw bala ngay daw. mu kii d' accord merci non c'est pas grave parce que. merci Awa ah, ñu bàyyi la nga daw xoolal ñu résultat yi. xale góor yi tamit duñ ma dàq daw kon ñoo ngi daw ni daw. merci merci Awa. merci jërëjëf Awa Awa mi féetee foofu moom itam euh, ci diwaanu Touba donc euh, lu ko gën a yombal mooy mu repérer mhm. euh, deux trois bureaux mhm. bindu ko. Si vous avez ñu euh, mën a afficher nga xam ne bu ci énumérer lu 3 c'est c'est au résultat. bureau de vote Mamadou Bayo. Hmm. nombre d'électeurs inscrits 574 nombre de votants 338 nombre de bulletins nuls Ben, nombre de suffrages valablement exprimés 342 ont obtenu Boubacar Camara une voix Cheikh Tidiane deux voix. daaw da Ndiaye trois voix Khalifa Babacar Sall benn voix Anta Babacar Ngom benn. Mhm. Amadou Ba 67 voix Serigne Mboup deux voix Mamadou Lamine Diallo benn kii nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar fay am na mhm. fa 264 voix. Mhm. d'accord alors euh, jërëjëf euh, Serigne Saliou bu ñu mënaatee lambaat euh, Aïcha Doucouré ak Moussa Niang parce que hmm. sànq ñu ngi doon wax ne tëj nañu foofu nga xamante ne moom moo di bureau yi amaana hmm. xëy na tamit ñoom ay résultat mi ngi hmm. jukkee foofu en ñuy dugg waaye ak li ñu mën a jàpp mooy na jamono ji nag wax dëgg yàlla lii fi ñu toll nii Euh, ki nga xamante ne moom moo di Jomaay euh, Faye moom mooy jiitu te mm-hmm. écart bi wax dëgg yàlla dafay nekk écart boo xamante ne écart bu bari la mm-hmm. mais sànq gis nañu ne am na foo xamante ne amadu Ba candidat Amadou Ba duñ euh, koy waxee xëy na Rwanda làbbali na foofu tamit mm-hmm. bu baax a baax priorité au résultat Kolda bureau CM2, Colda. bureau de vote numéro 2, nombre d'électeurs inscrits 125, mhm. nombre de votants 74, nombre de votants hors bureau originel 15, nombre de bulletins nuls 0, nombre de suffrages valablement exprimés 74 ont obtenu Khalifa Ababakassal, Sall ben voix, Amadouba 16 voix, Idrissek ben voix, Aliou ben, Serigne 3 voix, Ali 1 voix, Diomaye Diakhar Faye 45 voix moo tukkee Kolda ci CM2 bu Kolda bureau de vote numéro 2. Mhm. Milan, Milan uh-huh. priorité au résultat. Ça yu man le résultat Oui, rek de. waaw man ba ngi ah, résultat yi priorité au résultat. Mhm. foofee Milan nañu nombre d'inscrits 559 def ñu un nombre de votants bi mais qui signature bi ñu jot euh, PV bi ñu ñu ne Aliou Mamadou Dia am na fa set kii nga xamante ne moom mooy Aliou muy Ndiaye am na fa benn Diomaye euh, Diakhar fay am fa 217 voix. Mm. Euh, Idrissa Seck am benn. Amadou Ba am fa 25 cinq Khalifa xalifa Sall 3 Cheikh Tidiane Dieye benn Boubacar Camara benn loolee moo tukkee ca Milan. Euh, fële aussi tamit ca Finlande donc euh, ñi nga xamante ne am nañu ay zéro voix bari na lool Boubacar Camara zéro voix Cheikh Tidiane euh, Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mohamed Boun Abdallah John alors ñu jàpp Aliou Ndiaye zéro Bassirou Diomaye Faye moom moo am 33 alors fii ci Finlande nous ñu jàpp ne à part Bassirou Diomaye Faye mi am 33 voix mhm. Idrissa Seck am benn voix ñi ci des ñëpp ay zéro voix la ñu région de Dakar arrondissement Grand Dakar commune de Bel Air lieu de vote euh, cours Sainte-Marie de Anne, résultat nombre d'électeurs inscrits 584, nombre de votants 389, nombre de votants au bureau originel 7, nombre de bulletins nuls 5, nombre de suffrages valablement exprimés 384 ont obtenu Boubacar Kamara Ben, Détiefal 2, Khalifa Babacar Sall, 21 voix. Babacar Ngom, entre 2 voix. Amadouba, 85. Idrissek, 2 voix. Aliou Moumoudoudia, 4 voix. Aliou Ndiaye, Ben. Amadou Mamadou Diaw, Elage Mamadou Diaw, Mamboy Diaw, 2. Basilou Diomay Faye, 257. Al Alassane Sall, 2. Lolé Motouke Tchikour, Sainte-Marie, 2. Anne, Madame Kiedougou, Mbadjam 1, euh, Djangi. Euh, madame Madiam euh, bureau numéro 4, euh, Bassirou Jomai Faye 53 voix, Amadouba 18 voix, Pape Djibril Fall 3 voix, Idi Idrissa 1 am voix, Tcherno Alassane sansal 1 voix, le reste zéro. Restez toujours connectés à Océan FM 98.7 euh, Touba TV Belgique nous dem ci Luxembourg euh, mm-hmm. bureau de vote Luxembourg ville mm-hmm. bureau euh, lieu de vote Luxembourg ville mm-hmm. bureau de vote numéro 1 nombre d'électeurs inscrits 384 Nombre de votants 313. Nombre de bulletins hors bureau originel 2. Mhm. Nombre de bulletins nuls ben. Nombre de suffrages valablement exprimés 312 mhm. ont obtenu euh, King nga de Kefal ben Khalifa Babacar ben ben. 41 voix. Mhm. Idrissek, ben voix Aliou 2 voix Pape Djibril Fall une voix. Bassirou Diomaye Faye 265 voix lolé motoké fofé ci Luxembourg ville. Mhm. Seigne Saliou. ay ba batay rek ñu continuer ci loolu nga xamné modi résultats euh, résultat yi Dakar yakarna naa euh, bu ñu Tuba Mbake euh, Touba Mbaké itam bureau numéro 7 à Touba bureau témoin Bassirou Diomaye Faye 207 voix Amadou Ba 33 voix loolu moy tendance bi nga xamné amna fofu ci diwaanu Touba. Bataille tey ci daaru Marnaan wax naa ko léegi euh, Diomaye Faye euh, Diomaye Faye gagne avec 279 euh, voix bu ko defee ba tey rek mu ngi ci large bi foofu ci Touba Mbacké foofee ca Mbacké diwaanu Tivaouane bureau numéro 6 Jomai Diakhar Faye 48 voix Amadou Ba 25 hmm. bureau kooku moom moo ci bureau numéro 1 bi bureau numéro 2 bi Diomaye Diakhar Faye 61 voix Amadou Ba 12 voix bureau numéro 3 Diomaye Diakhar Faye 49 Amadou Ba 19 loolee moo tukkee ca foofee ca. Ngaye Mexe euh, ca Ngaye Mexe. Mhm. sëñ Sall. waaw ba tey rek ci Ngaye Mexe foofu nga euh, tolloon léegi ñu wëlbatiku dem Kolda CM2 B1 Diomaye 52 euh, voix Amadou Ba 12 voix bureau numéro 2 Diomaye 44. Euh, voix, Amodoba 16 voix, Bureau numéro 3, Jomai 42 voix, Amodoba 20 voix, Bureau numéro 4, Jomai 47 voix, Amodoba 18 euh, voix loolu moo tukkee euh, ci Kolda. Nous dem fait Milan Italie bureau bu la localité bu Como Mbacke Mbodj war na xam bu hmm. résultat yi nombre d'électeurs inscrits 565 nombre de votants 345, nombre de votants hors bureau originel 2, nombre de bulletins nuls 6, nombre de suffrages valablement exprimés 339 ont obtenu mm Diomaye Faye 259, Alégou Ndiaye 1 voix, Djibril Fall 3 voix, Serigne Mboup 2, mhm. Aliou 10, Irisek 1 voix, Amadouba 60 voix, Khalifa Sall 3 voix, Lole Motouke Komo foofee Italy, Italie saint mhm. commune de Marsassoum centre de Manguiré qui qui 73 qui est maintenant à Amadouba, 13. Amadou 13 mhm. mhm. euh, loolu mooy li nga nous. Euh, Massassoum ni nga ko waxee noonu noonu la ñuy euh, wéyandilee yaakaar naa ñeneen ñi nga xam ne itam suñuy correspondant lañ nekk ci euh, diwaanu Ndakaaru itam bu ñu mënee jege si wax ñu ana yan résultat la ñu am à chaud nous ñi nga le dañuy ci biir bureau de vote yi wala sax ci centre yi donc euh, ñu ngi fait une euh, euh, réaction bu ko défé ma dem ci benen bureau de vote bi yon diaspora bi lañuy wutali résultat Berlin 136 votants jomay 108 voix Amadou 26 Khalifa Sall une voix Serigne Mboup une voix ñu dem itam ci bataille Allemagne Jomay 45 voix euh, Amadou 10 voix Pape Djibril Fall une voix Antababa Babacar Ngom euh, une voix Aline Mamadou Dia une voix les autres euh, zéro. Nous dem à de Montpellier deuxième bureau centre de vote Nous sommes à foofu Diomaye Faye a 264 voix Thierno Al Sansal am fa Ben, Mohamed Abdallah John fait Ben fa Il voix Idrissa Seck 3 voix. Mhm. Ali Mamadou Dia 9 voix Kidi dit Amadou fait am 22 voix.

xam itam euh, lan moo tukkee foofu ci diwaan ga bu ko defee bu ñu mënee jege si euh, euh, abdu fay ngeen làmbal ñu ki nga xam ne moo di Awa Ndiaye ñu dem ci Mbour ak Moussa aussi mm-hmm. Mbour centre de vote Gaynde Fatma bureau numéro 5 Diomaye 255 voix Amadou Ba 88 fois Aline Mamadou Dia 15 voix donc mu nekk li tukkee foofee ca résultat yi nga xamante ne moom nga joxe. Mhm. aram mhm. mel na ni euh, résultat yi ñu ngi wadd euh, voilà ci bu gaaw gaaw résultat yi ñu ngi euh, wadd bu baax a baax. Mhm. donc ñuy xaarani tamit yeneen résultat yi nga xamante ne suñu naataangoo yi nekk ci terrain bi. ñoom ñëpp bu yàkkamti nañ ñu dugg jox ñu li nga xamante ne ñoom ñooy résultat yi jukkee foofu donc fi mu nekk nii moom. yaakaar naa ne wuréewa dem na këng comme ni ñu. koy waxee non demagul këng demagul këng nañu nañu man waa Fouta laa déggagul benn yoon. waaw dina ñëw bureau yi xam nga. waa Matam Fouta donc seen i seen i résultats c'est des bureaux potentiel. waaw fort potentiel. mais li ñu mën a jàpp. Ah. ci xayma yi nga xamante ne moom nañu am moom nañu amagum. Mm-hmm. fii ci li résultats yi ñu jot. Mm-hmm. Euh, mën na wax ne mm-hmm. am na mm-hmm. euh, benn euh, détachement boo xam ne mu ngi commencé mm-hmm. am ci benn candidat muy Bassirou Diomaye Faye ñu xaarandi nag comme élection résultat yi mën na dem ba dernier moment mu ñëw Lambert carte gi waaw ma jëm ci HLM Grand Médine comme ni nga ko waxee priorité au résultat HLM <laughs> Grand Médine bureau de vote numéro 9 361 votants Euh, voix euh, il y fa di ay xop Amadou Ba 84 euh, voix jomay 237 voix Khalifa Sall 12 voix je rappelle que fi moy centre Amadou Ba. mooy fi may wax ni HLM Grand bureau numéro 9. donc fofu moy centre bu Amadou Ba donc am nañ fa 361 votants Amadou Ba am 84 voix. bureau 237 voix. Euh, Khalifa Sall 12 euh, euh, voix donc bureau bi mo top ci bureau Amadou Ba. d'accord alors numéro 8 ah, bureau bi moy bureau numéro 9. donc ñu jël ki nek en ligne. priorité au résultat. Mm. Awa Ndiaye. Mm. waaw. Moussa walau, wala wala Aram. Aram Serigne Saliou koo wax rek yow doxal résultat rek ngi lay dégg yow rek la dégg. léegi daal xam nga bu ñu bëggee gaawantu dañuy bàyyi ay une voix yeeg zéro voix. waaw loolu la loolu la loolu la loolu la daf ñuy yéexal waaw Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Faye parce que wax dëgg yàlla ñoo gën a fës. Hmm. waaw bu ñu jëlee am nañ ci ñetti bureau yoo xam ne nii pare nañu affiché nañ ko ba pare muy bureau de vote numéro 57. Hmm. foofu Bassirou Diomaye Faye am na fa 285 voix. Hmm. Amadou Ba am fa 19 voix. Hmm. bureau de vote 73. Euh, Bassirou Diomaye Faye am na fa 244 voix. Amadou Ba am fa 24 voix. bureau de vote numéro 39. Bassirou Diomaye Faye am na fa 272 voix. Amadou Ba am fa 25 voix. xam naa nag jombul euh, ne dañuy daw ni euh, mhm. ndogu bu mhm. mhm. ñu ndoguwee quitté centre bi dem euh, fi nga xam ne moom moo di université xool foofu tamit tendance bi naka la fa demee waaw ñu yokk ci li mu joxe rek ci kii bureau de Kanka Touba bureau 67 inscrit 518 votant 314 Diomaye Diakhar Faye 225 Amadou Ba 19 ayca ba tey dem ci yeneen i bureau mm-hmm. euh, su ngeen amee résultat yi tubaab mm-hmm. tubaab ba mm-hmm. léegi moom mooy wadd daaru mën naan joxe nañ ko Bordeaux joxe nañ ko donc euh, ñu leen di toppal résultat yi sëñ Saliou euh, ñu nga dem foofee ci Pikine Pikine Est la jëm école 3A bureau numéro 7 nombre de votants mu ngi toll ci 131 votants Bassirou Diomaye Faye am 84 voix Idrissa Seck am 2 voix euh, Thierno Alassane Sall am une voix Daouda Ndiaye am deux voix Amadou Ba euh, am 37 voix Khalifa Ababakar Sall am une voix Aliou Mamadou Dia am trois voix am ben bulletin nul bo xamné néméku nañ fa buñu ko jugee dem Ziguinchor sand centre Landing Tamba bureau 9 et 10 euh, donc fofu Bassirou Diomaye Faye moo fa jël ndam ñi ndax avons euh, am ci 549 euh, voix euh, Amadou Ba moo ci toftalu am 56 voix. Nous avons wax ne fofé Marseille nombre d'inscrits 3619 nombre de votants 1670 information bi ñu jot nag le Bassirou Diomaye 1382. Mm-hmm. Amadou Ba am fa 183 parcelle HLM H&M, ah, Espagne mm. inscrit ah. euh, Coyoacel Amazon bon euh, inscrit 396 mm-hmm. nombre de votants 280 bureau numéro 1 Diomaye 258 Amadouba 18 les autres bureaux ni liñ ko niñ ci amuñu fa danaka mm-hmm. dara joxé nañu centre Italie donc ñu bàyyi le sëñ Saliou ngay résultat Saint-Louis lañuy euh, région de Saint-Louis département de Dagana arrondissement euh, Ndiaye euh, euh, commune de Ronkh fofu nak ci liñu fa mëna a ci bureau de vote bile liñu fa mëna a jàppandi nag moo ki nga xamné modi Amadou Ba mo fa jël raw gàddu gi am 103 voix fofu toftal ci Basirou Diomaye Fay am ci non wa Basirou Diomaye Fay euh Hadj Mamadou Diaw mo ci top am 11 voix. Bassirou Djoma euh, Djahar Fay am deux voix. mu nekk li tuxoo ci bureau bi nga xamantene mom la Seigne Saliou Keita joxe. ñu dem muy Saint-Louis. ñu dem mhm. euh, Touba toujours bureau numéro 15. ci Janatu ñu ne fa ñu ne Diomaye Diakhar am na fa 200 voix. Mhm. ki di Amadou Ba am 18. Mhm. Serigne Mbop am fa ñaari voix. wa dem ci département bu Bignona commune de Olampane euh, localité Sinkilinkin. Euh, bureau de vote 1, euh, euh Basir ou Faye am fa 164 voix, Amodoba am 28 voix, Khalifa Sal am 3 voix, Mamboy Djawa am 1 voix, Idrissa Sasek am 1 voix, Serigne am 1 voix. Bataïti département de Bignona ci Benen bureau de vote Diomaye am fa 192 voix, Amadou 24 voix Khalifa Ababakar Sall une voix Boubacar Kamara une voix Cheikh Tidiane Dieye une voix Tcherno Alassane Sall une voix. Je remercie ñi top euh, depuis bi ñu en ligne. Euh, mhm. ñu wax euh, résultat bi nga xamante ne moo tukkee Royaume-Uni maanaam Birmingham Royaume-Uni. Mhm. Diomaye Faye Diakhar am 152 voix Amadou Ba am fa 17 voix Khalifa Sall am fa 4 voix. Serigne Mboup am fa benn voix bulletin nul ñi ci des bulletin benn ñi des amuñu fa danaka dara. Mhm. ba day rek ñu wéyandil ci. yaa ngeeg euh, Ndam. ñu jox leen Ndam. acca waaw Ndam euh, bureau Touba bureau nak Ndam bureau la. Mhm. inscrit 517 votant euh, votant 310 Bassirou Diomaye Faye 279 Amadou 16. ci Ziguinchor euh, du Bayo euh, bureau numéro 5 Diomaye Diakhar Faye am na fa euh, daal di jël raw gàddu gi lu tollook 264 voix contre 67 yi nga xam ne. Amadou Ba moo am fofé ci joxé joxewoon nga ronk kéro wa wa ronk. wa bureau de bureau numéro 7 Le Havre Bassirou Diomaye Faye 126 Amadou Ba 60. 8 hmm. Ziguinchor sant Modou Bayo joxe nga ko. Hmm. donc ñu euh, ñu xaarandi suñu yenen euh, résultat yi xam ne ñu koy jot amna bu waddee. Hmm. fi euh, ci Ziguinchor bureau Modou là, la ba mhm. léegi 264 Bassirou Diomaye euh, Faye Amadouba, 67 Madame, dem ci euh, diaspora bi fekk fa Tchad inscrit 268 euh, votants inscrit 268 votants 107 bulletin nul 3 Diomay Fay am 57 voix Amadouba, am 40 voix Idrissa Seck am 3 voix Khalifa Ababakar Sall am deux voix Anta Babakar euh, am une voix Serigne Mboup une voix. Amna bureau buñu jot bureau numéro 9

que Ben ben voilà Qui nga le moy Khalifa Babacar Sall am fi de Déthié Ben benn euh, mm-hmm. mu euh, bureau Bobu Nek Grand Médine bureau numéro 9 nombre de d'électeurs inscrits 580 nombre de votants 5 351 bureau or originel bureau 19 nombre de bulletins nuls 3 nombre de suffrages valablement exprimés

le, le, le voté dugalal ki nga xamante ne moo en ligne ci correspondant yi priorité au résultat. Mhm. Euh, soxna May kan moo nekk ci ligne bi. ayca dañuy dem ba ci diwaanu Thiès euh, itam ayca bu yembe ñu tabal ko xol itam ana yeen résultat mo tuké euh, fofu ci diwaanu Thiès. Bataille, nous ñu japp ni Touba itam làpp ya nga fay Amodoba, am euh, ci Chi Bassirou Nak euh, fay ak Amadou Ba euh, ñu bari ci candidat yi nak amuñu fa yu bari centre témoin yi nga xam nañu ci yile résultat dañuy dem Nord bureau numéro vote 11 avec 148 pour Diomaye et 21 voix euh, pour euh, Amodoba. Palma de Mallorca Foufet, Espagne ñu ngi ñuy wax ne euh, foofii Bassirou Diomaye Faye mo fa jitu mm-hmm. Top ci ak mo fa ak 131 voix. Mm-hmm. Aliou Mamadou Dia am 11 voix. Mm-hmm. Amadouba, am 8 voix Foufet, Espagne. waaw. Euh, ba tey rek euh, ñu wëyeli euh, mante la Jolie France sans joxe woon nga ko foofu itam di résultat yi yo xam itam ba tey mu ngi wëy di wàcc foofu ci diaspora bi danaka diaspora bi ak film national bi ñoo wëy di andando lëkkaloo rek Université Touba Darou Khoudoss Amadou Ba 12 voix jomay Faye 127 voix bu ko défé ñu duggal Aminata Gueye moom itam mu ngi au niveau de la régie si possible ngeen fexe koo tàbbal moom itam avant heure ndog bu ko defee su ma ko dugalee euh, wala sax euh, sëñ Saliou Faye suñ ko dugalee ñu bàyyi ko mu dem ndogu waaw waaw ñu ñu dugal ko bàyyi ko mu dem ndogu ji laata loolu ñu war ko mun a ratere rien mm, mm. ci élection yi nga xamante ne moom la ñuy euh, def ci bésu dimanche bi fii mm. foofee ca Toulouse bureau de vote numéro un nombre d'électeurs inscrits 532 nombre de votants 269, nombre de, de votants hors bureau originel ben, nombre de bulletins nuls ben, nombre de suffrages valablement exprimés 268 ont obtenu Basirou Diomaye Diakhar 209, Tierno Al-Sansal ben, Djibril Fall 2, Ali Moudoudia 4, Rissek 2, Amadouba 44, Anta Babakar Ngom ben, Khalifa Babakassal ben, Boubacar Camara benn priorité au direct kan moo nekk ci ligne bi. ñu jox Aminata Gueye moom itam ci diwaanu Liberté 6 soxna Aminata. waaw sëñ Saliou. foo toll ak yan résultat moo génn. waaw ñu ngi ci hmm. ci 6A. Euh, hmm. euh, am na une voix. Hmm. Euh, Amadou Ba. neuf voix. Mm-hmm. Anta Babacar Ngom trois voix. Mm-hmm. Anta Babacar Ngom. Mm-hmm. neuf voix. Anta Ba. très euh, rapidement Aminata. Uh-huh. Euh, Khalifa Ababacar Khalifa Ababacar Ngom trois voix. Idrissa Seck une voix. Aliou Mamadou Dia deux voix. Euh, Mohamed Boun Abdallah John, une voix. Elage Malik Gakou, zéro voix. Euh, Ali deux voix. Elage Mamadou euh, Diawo, une voix. Bassir Diomaye Faye, 223 voix. Tcherno Alassane, trois voix. Hmm. Merci. Aïtia, euh, Sorna Aminata, Euh, kon bu fekkee da ngay demaat ci beneen bureau day nekk loo xam ne day gaaw da nga ñuy jox résultat yi gën a mag. Euh, bu ko defee waaw waaw suñ ne bureau bii ma la jox ñaar ñoo fi euh, gën a mag fii. waa génn. d'accord di mhm. ki nga xamante ni mooy. Amadou Ba. Khalifa non Anta Babacar Ngom. Mhm. neuf voix. Mhm. merci. merci euh, uh-huh. Tu es Dagana mm-hmm. où euh, Dagana centre Aliou mm-hmm. Mbana bureau numéro 6 mm-hmm. Diomaye 106 Amodouba 63 Dagana centre Aliou bureau numéro 6 Djomai 66 Amodouba 63 bureau numéro 7 Dagana école Alinsar, Basilou Bassirou Faye 68 Amodouba 64 fait Pays-Bas, 503 inscrits, 205 votants, 5 bulletins nuls, 126 pour Diomaye, 69 pour Amadouba, 2 pour Ali Moudia, 2 pour Khalifa Sall, Ben pour Tiana al Sall. Nous avons en ligne. Allô Allô Allô Aïcha. Ousmane Ba Kael. Ousmane Ba Kael. Allô oui, Nakamu. Ousmane Ba. Euh, Papa Talou. Hmm, kay ñu ngi lay déglu lan euh, euh, résultat bureau de vote bi nga Goube. les inscrits sont au nombre de sont au nombre de 104, donc bureau Goube. Allô, oui waaw 104 euh, donc euh, pour les inscrits euh, pour Benno Bokoyakar, 58 coalition Jomaï, 6 Kinga Khamenei, moi, ni une voix qui Khamenei, moi, moi Djibril Fall également une voix ñi ci zéro voix. Donc mhm. le bureau LAM 2. Mhm. le nombre d'inscrits sont au nombre de 228 ben bokk yaakaar am 123 mhm. euh, li nga xam ni moom coalition jomaay am 11 ali nguy njaay am une voix ki nga xam ne ni pap jibril fall am une voix cern mhm. alassane sall une voix abib si une voix soo jëlee li nga xam ne ni moom fas fas donc le nombre d'inscrits est 190 Benoît euh, Benno Bokk 39 voix euh, coalition hmm. Diomaye am 40 voix euh, taxaw hmm. di Khalifa am une voix euh, PUR am 23 euh, voix hmm. ki nga xam ne nii moom une voix Habib une voix Anta Babacar trois voix Serigne une voix Daouda euh, am une voix Lamine dialotéki une voix. Mhm. soo euh, à part face kl il y a euh, kl 1. Mhm. Donc, nombre d'inscrits 227, Benaboko Yakar 105, Coalition Djomay 17, euh, une voix, Tahou une voix, KL1, donc Pape Djibril une voix, euh, J une voix. Anta Babakar, neuf voix. So j'ai KL2 Inscrit 226. 128 pour euh, Benno Bokoyakar. 12 pour euh, la coalition Djomaï. Une voix pour Tahaou Dakar. Hmm. ensuite, KL2 euh, donc euh, euh, Pape Djibril Fall une voix, cinq voix pour Anta, une voix pour euh, euh Daouda et une voix pour euh, Boun Abdullah John. Mhm. nga jël li nga xam ne moy mooy Sam Thialé 350 voix 350 donc, euh, Bernard a obtenu 78 et Tahaou Jomai, euh, coalition Jomai, 167 pour Mom Diomaye Mom gagné. Nous Nyep a eu 1 ak 0 0 lañu Wow, am. Mhm. Waaw, so jëlé Touba Bobarel 41 euh, mhm. inscrits, 6 euh, mhm. pour Benoît Bokoyakar et 15 pour euh, Tahaou wala coalition euh, nga jël mairie 1 Kayel toujours 514 ñom ñoo bindu avons inscrit 210 pour la et 60 mhm. pour Jomay mhm. le reste c'est entre 1 et 2 mhm. alors mairie 2 281 ñom ñu euh, donc euh, il y a 3 bulletins les inscrits c'est 524 313 euh, pour votants ben no yakar 261 coalition 31 mhm. euh, réumi idi euh, une voix mhm. euh, trois voix pour Boun abdallah john et alingou 5 5 nga banani 2 c'est ça c'est ça que je veux bien te donner tout mhm. touba kael 300 sont les inscrits

waaw Ousmane jërëjëf Ousmane. Ousmane Ba Kayel pour Océan FM. Ousmane jërëjëf Ousmane. Ousmane résultat école Gaynde Fatma. Mhm. nombre d'électeurs inscrits 397 nombre de votants 379. Nombre de votants hors bureau originel 5, bulletin nul mhm. Nombre de suffrages valablement estimé 378. Foufou, -hmm. Fofu Diomaye Faye 255. Thierno Al-Sansal am fa voix. Mhm. Aly Ngouille Ndiaye voix. Mhm. Serigne Bouk, deux voix. Aléou Mamadou 15. Idrissa Ben, Amrouba, 88. Anta Babacar Ngom 2 Khalifa Sall 3. Mhm. Euh, Boubacar Camara 2. mu mel ni nag sëñ Saliou timis jot na. Mhm. waaw dañuy euh, def benn euh, tampon rek bu ndaw. Mhm. daal di ñu jël ki nga xamante ne moom moo. nekk ci ligne bi ah. ñu def tampon bu ñuy demee tampon ñëw ma joxe résultat yi nga xam ne hmm. moo féete ci diwaanu dëkku Abdou Faye di Ngoundiane. loolu ëpp naa def. acca hmm. bismillah kooku ku nekk ci ligne bi. Moussa Niang. Moussa Niang voilà centre xaar yàlla bureau 6 mi ngi door a donc euh, affiché li ñu mën a euh, jàpp moo di que euh, nombre de suffragement exprimé. Euh... bon ce mot, ce mot, ce mot, ñu nag dafa commencé type dem <laughs> ah, euh, euh nombre de votants 379. Mhm. Euh, bon je vais vous donner rapidement les résultats. Hein. voilà voilà Moussa très rapidement. Voilà, Boubacar Kamara, 2 Cheikh Tidiane 0 gt 2 Daouda Ndiaye 0 Habib Sy 0 euh, Khalifa Babacar Sal 33. Euh, Antababa Kangom Ngom euh, une voix, euh, Amadou 106 Idissa hein, Idrissa 1 ki Ali Ali 7 1 Serin Boub 1 ki nga xam une voix euh, Diallo 0 Mbout Abdoulaye 0 Malick une voix Ali Gueye une voix Gao. 0 voix, euh, Bachir Oudiomaye Faye 203 euh, voix, Thierno Sansal, 0. alors donc voilà loolu moo génn léegi ci bureau 6 euh, ma euh, ngi may yégal ne am na bureau bu affiché. Mmh. merci merci euh, Moussa Nyan. Euh, le temps que. nous Nous quand même. tampon. quand même euh, timis mm-hmm. timis. Mm-hmm. dans 15 minutes dans minutes on FM 98.7 Touba TV les résultats yi vont, yi gëna woor di wax bismillah ñu dem dog ak dans 15 minutes ñu merci

Euh, ba nous ñu ànd ak yow de fort et de belle manière ñu gannaaw ba ñu dogee ba noppi ñëwaat fas euh, continuer diktal askanu Ocean FM 98.7 les auditeurs ak auditrices, waye tam ak ñi nga xam ñoo ñuy suivre euh, ci Touba TV en synchro depuis ce matin liko waral nak modi élection présidentielle yi fas ko euh, kon ñu wéyandil euh, euh, Serigne Saliou Faye résultat yi dem ci résultat yi ba tey wutali ci diwanu Gorée bureau numéro 2 Bassirou Diomaye Faye am fa 194 voix Amadou Ba 135 fi nga xam itam moo di ba ci Gorée fofu Amadou am 135 bureau numéro 3 Jomai euh, am 191 euh, voix euh, Amodoba am 137 voix commune de Lugue, école Ndiang Santhiaba Nord bureau numéro 11 jomai Faye 198 voix Amodoba, 66 voix école Nyang, bataille Fofa, Le le Chi, chi ci euh, ñu avons ci yooyu ma jox la kàddu gi sëñ Saliou Faye boo noppee ma. joxe nga Pikine euh, Kabirou un waaw. Euh, joxe nga résultat boobu. non numéro 6. Mm-hmm. Diomaye 217 Amadou 108. Euh, foofee Pikin euh, bureau numéro 6. Euh, mm. école Kabiru Mbodj. Mm. Djulbel école Ndoba bureau numéro 4 Djomay 227 Amoudouba 76. Gore mom defena naa nga ko nga commune de Louga. wa commune de Louga joxe nga ko ñu ko rek école Njang Santhiaba Nord. bureau numéro 11 Djomay 198 Amadouba 66 école Ndiang Sanche Nord bureau numéro 12 Jomai 202 voix Amadou 48 euh, commune de Louga ñu école Sud bureau numéro 8 Jomai 214 Amadou 61 voix cœur Louga Nord bureau 1 Jomai 199 Amadouba 88 sommes dans la commune de Louga ba léegi résultat donc Loloumov moo qui est euh, ci nous ñu bureau numéro 1 588 inscrits Diomaye Faye 234 Amadouba 102 PUR 8 bureau numéro 2 586 inscrits 378 votants Diomaye 238 Amadouba 104 PUR 10 nous sommes prophétiques, bureau numéro 1, nous sommes votant 361. Bulletin nul 4, Bassirou Diomaye Faye 218, Amadouba 82, Antaba 16, Pur 22. Euh, Ibrahima, nous sommes en ligne euh, avec euh, Moussa Ibrahim, la priorité, ce sont les résultats qui sont, qui, sont lus ici au direct. Mm. Après, nous avons en nous correspondant donc nous Dougal Kenen. Mm. Euh, Moussa Moussa mm. euh, Allô Oui, euh, Moussa. Voilà, donc résultat, est tombé. bureau 6 tantôt mom la len waxone hmm. légui dem ci bureau 16 hmm. euh comme niñu ko waxé donc nombre d'inscrits de 600 votant 375 euh, hmm. euh butin nul 0 euh, Boubacar Camara 4 la am 1, Tidiane euh, voix 0 euh, Daouda Ndiaye 0 Habib 6 0 euh, Khalifa Babacar 34 euh Karngom, Ngom 0 euh, 104 la Idrissa euh, une voix, euh, Ali Mamadou six voix, euh, une voix, euh, Djibril Fall zéro, Gallo mhm. zéro, Abdoulaye zéro, Gakou zéro, mhm. Ali zéro, Diao zéro, Bassirou 221, euh, 2. waaw donc loolu la ñu mën a jàppandi euh, nga rappelé ñu ban centre nga nekk ak ban bureau de vote nga doon yëkkati noonu. voilà yàlla li ñu jàpp fii daal moo di. Mhm. Euh, Bassirou Diomaye Faye est mhm. largement en tête. Mhm. ah d'accord ci ci centre bi li ñu jot jërëjëf Moussa Niang ba ndogu nga rek dëgërlu nga. waaw waaw ñu ngi tourné xool yaat xoolaat yeneen euh, bureau yi. incha allah mm. jërëjëf mu ngi noonu ñu ngi lay jëfal bu baax a baax uh, Moussa Niang uh, moom itam mu ngi foofu uh, Masser Gueye Baye Fall itam am na ay résultats yi ma jox yoo xam ne mu ngi fii ñu daal di koy tàbbal Masser Gueye Baye Fall tamit wax ne foofe ci diwaanu Kër Massar yëmbal yëmbal sud Kër Moussé Anta Diop lii de vote Moussé foofu nag nemmeeku nañ ne Basirou. jomaay jahar fay moo fa jël raw gàddu gi euh, lu toll ak 222 voix la fa daal di am toftal ci amadou ba mi nga xam ne 82 euh, voix euh, ñi ci topp di ci boubacar camara am 4 voix ki ci topp itam di xalifa ababacar sall am 10 voix amadou aliou mamadou dia am 33 voix moom itam ba tey rek foofe ci diwaanu yëmbal kër masaar waaw ci diwaanu yëmbal Kër Massar am na ku nekk en ligne ci suñu correspondant yi ngeen xoolal ñu euh, foofee ci île du Saloum euh, mhm. jibril Ndiaye mu ngi demander à euh, entrer en contact pour donner les résultats de l'île de Dionewar mhm. ñu jéem ko làmb jéem a làmb Awa Ndiaye mu mottali ñu résultats yi nga xamante ah. moo tukkee foofee ca ca Touba ñu ñu dem ci résultat yi toujours euh, Abdou euh, Abdou Diouf. waaw ma yeggali fi nga xam nak modi keur Massar euh, région de Dakar département de Kër Massar arrondissement de yembal foofu itam ñu ngi fa jappandi ci bureau de vote bi nga xam bureau de vote numéro 14 foofu lañ fa mëna japp modi 224. Euh, voix yoo xam ne sànnil nañu ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye itam euh, ki ci toftalu di Amadou Ba am 78 euh, voix ki ci toftalu itam di ñi nga xam ne ñoo di waa xalifa Ababacar Sall ñoom itam am 10 voix Ali Mamadou Dia am 31 voix ki nga xam ne moo di El Hadj Mamadou am une voix Cheikh Tidiane Dieye am une voix Euh, Daouda Ndiaye une voix, Abibsi a une voix. Merci. Euh, on a un correspondant en ligne. Mm. Euh, ñu dugal ko s'il vous plaît Allô? la allo. Son Son nom Waouh, c'est ça Waouh, faut fêter avec lañ Fofu. <laughs> Ah, instant bi je suis école Liberté a C'est mm-hmm. euh, bureau numéro 4. Mm-hmm. Boubacar Camara am une voix. Mm-hmm. Déthié Fall fait deux voix. Mhm. Daouda Ndiaye quatre voix. Euh, Khalifa à Sall fait voix. Anta Baba trois voix. qui mhm. di voix. Mhm. Euh, Bassirou Diomaye voix. ou alors d'accord merci. merci euh, la régie ban correspondant mo nek en ligne ñu jox ñu résultat yi ñu lamb fi nga xamantene mom moy diwanu sokon les Souleymane à ak il du Saloum parce que élection yi danaka ci gox goxaan yépp ci lañu ci lañ bok mhm. donc ñu xol à ce niveau euh, Abdou Diouf sur euh, les résultats euh, <coughs> merci euh, Salou merci euh, Serigne Saliou également mhm. Euh, tendance yi ñu au niveau de la diaspora. Mhm. tendance yooyu dafay confirmer au niveau national. Mhm. alors euh, ces tendances c'est favorable toujours à la coalition Diomaye euh, président donc les euh, lignes constatées également mooy que ni entre les résultats de dafa xaw mhm. voilà les autres lignes ñu nous a également les autres coalitions vraiment c'est une toda a participação eh, ah, do neonotropa. Neonotropa. Neonotropa. neonotropa. Voilà. Uh, nous devons correspondre à amna connect en ligne. waaw euh, bu ngeen demul nag à notre rythme day day xaw a. day xaw a am ay jafe-jafe. donc ma dem ci Ngunjaan fekk fi itam euh, ñi nga euh, résultats yi nga xam ne mu tukkee foofu daanaka pratique pratiquement foofee ca Ngunjaan Mbayeen jàkk bureau numéro 2 Bassirou Diomaye Faye 124 voix Amadou Ba vingt 24 voix. Mbayeen Diack bureau numéro 1 Bassirou Diomaye 490 voix. Amodoba 82 voix euh, bu ñu démé ci 172 euh, euh, voix Amodoba 43 voix Pur 2 voix Déthié 2 voix Boubacar Kamara une voix Abipsi 1 une voix deux bulletins nuls bu ñu démé centre de vote cœur Ibrakan nombre d'inscrits 202 votants 155 bulletins nuls 04 Djomai 100 euh, voix, Amadouba 43 voix, Idrissa 5 euh, voix, Boubacar 2 euh, voix, Ali Mamadou 1 voix. Résultat de vote Ngundian Sammel bureau numéro 2, nombre de votants 276, Bassirou Diomaye Fay 204 voix, Amadouba 54 voix, Samel 1. Fofitam ci Gorgorati, beaucoup de bokk na ci région Samuel 1 217 Amodoba, 53 voix Mousnach euh, Mouamitam, euh, Ngach euh, commune de notre Djobas Jomai, en 111 Amodoba, en 13 voix Jack Mordahan, bureau numéro 1 Bassirou Jomai, Faye 270 voix Amodoba, 69 voix Jack Mordahan, Bataille, New Wendil, wéyandil Ngach, commune de Nota. Euh, Jobas euh, Jomai 111 Amodoba, euh, Mom Tamed tamit Mouni 13 voix Batayrek, tey rek ñu jag bureau numéro 1 Basirou Jomai Fay 270 voix ak fi nga Amodoba, modi 69 voix ñu jël ku nekk en ligne kan la am la régie allô salam alaykoum Abdourahmane waaleykum salaam ñu ngi ziar waaw ñu ngi lay euh, ziar ñu dem ci résultat yi. alors ñu ngi fii ci euh, Zagmaaw ci école primaire bi fi nekk. Mhm. ñu ngi ci bureau numéro 10. ñu numéro 10 Zagmaaw. waaw ñu ngi am nombre de lecteurs inscrits six cent nombre de votants trois cent cinquante. Mhm. Euh, Khalifa mi ngi am sept mhm. benn voix. Anta Babacar Ngom mi ngi am benn voix. Amadou hmm. Ba mi ngi am 78 voix. Idrissa Seck mi ngi am hmm. benn voix. Aliou Mamadou Dia mi ngi am voix. Serigne Boub mi ngi am benn voix. Pape Djibril Fall mi ngi am 3 voix. Ali Ngouille Ndiaye mi ngi am benn voix. Bassirou Diomaye Faye mi ngi am 255 voix. D'accord. Ñu ñëw ci bureau numéro 13. Babacar Camara mi ngi am benn voix. Khalifa Babacar Sall mi ngi am benn voix. Mhm. Amadou Ba mi ngi am quarante six voix. Mhm. Aliou Mamadou Dia sept voix. Mhm. Serigne Boub mi ngi am benn voix. El Hadj Mamadou Diawo mi ngi am trois voix. Bassirou Diomaye Faye mi ngi am cent soixante sept voix. ba tey fii sax ndaw si école bi école primaire bi bureau numéro huit. mi ngi am euh, Anta Babacar Ngom. mi ngi am deux voix. Mm-hmm. Amadou Ba mi ngi am trente six voix. Mm-hmm. Daouda Ndiaye mi ngi am benn voix. Mm-hmm. Aliou Mamadou Dia mi ngi am six voix. Pape Djibril Fall mi ngi am deux voix. Bassirou Diomaye Faye mi ngi am deux cent quarante huit voix. ñu ñëw ci bureau numéro onze. ba tey ci école Senghor. ñu ngi am Khalifa Ababacar Sall sept voix. Amadou Ba 68 voix. Mhm. Idrissa Seck 53 am 3 voix. Mhm. Aliou Mamadou Dia 55 am 5 voix. Mhm. Pape Djibril Fall mi am voix. Mohamed Boun Abdallah Dionne am voix. Bakir Diomaye Faye am 262 voix. Moi, xam naa ne su nekkee ni moom bu rek moom euh, D'accord. D'accord. d' accord majorité Faye merci beaucoup merci ci résultat yi. Euh, L'emballement euh, euh, làmbal leen ma euh, Sokone ak les îles de John War c'est des résultats importants ngeen làmbal ma bureau de vote yi nga ne faut ak Souleymane Sow fi nga le ne moom le candidat euh, la job voté ak le candidat malik Gakou ah ah ñu jox leen résultat Kaolak, Kaolak, bureau El Ibrahim Ibrahima Niass les Inscrit 577, nombre de votants 313, nombre hors bureau originel 8, bulletin nul 3, suffrage Balama exprimé 310, ont obtenu euh, Basselou Diomaye Diakher Faye 186, Tierno Alsan Sal 4, Elage Mamoudou Diao 1 voix, Mohamed Boun Abdallah 1 voix, Pape Djibril 1 voix, Serigne Boub 2, Ali Mamadou 2, Irisek 1, voix, Amadouba 104 voix, Dechefal 3, Chertian Dieye 1 voix, euh, Idrissek wax voix Serigne Boub 2 donc mu nekk li centre Ibrahim Niass donc foofu ci élection yi nous avons kan moo en ligne ñu jël ko allo allo ah, allo waa Seydina maa ngi lay siyaar doyen Père ñu ngi lay fay bu baax euh, bismillah ci résultat yi. en fait euh, ñi ngi ñëwaat fii euh, école Adolphe Diagne bu Golf Sud. Mhm. vu que ni am na bureau yoo xamante